bi depuis temps Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade ba tey doléance bi muy ci place am euh reine mom fa tabarkalla PUDC andi nañ forage forage bi muy commencer dox am nañ euh, espoir né yeneen yi tamit inshallah président dina si taaw waaye li nga xamné mo gëna am importance aussi à part yone bi moy euh modernisation des foyers religieux bo xolé tey ñi fi ñëw yépp dañuy ñëw.

Euh, ki mel ni Paul Marty bind na si CNHM Foot moo tax bu ñu demee gis euh, professeur euh, Iba Der Thiam ñu sant ko gërëm ko wax nañ ko ne am nañ vraiment intention que li nga xam ne loolu la Paul Marty bind si CNHM Foot pour ñu corriger ko waaw parce que am na yoo xam ne nu mu ko bindee du noonu du noonu te ñun am nañu sunu ay papa sunu ay kilifa yoo xam ne ñoom li ñu bind boobu lañu gëm mais professeur incha allah dafa daf ñu accueillir à bras ouverts et woon ñu ne. incha allah lu ñu koy andi moom lay produire boo gisee président de la république Macky Sall insister pour mu def liggéey bi c'est pour ñu corriger erreur yoo xam ne tubaab yi ñoo ko bindoon fii parce que tubaab yi joxuñu woon nit ñi cër joxuñu woon nit ñi seen gëdd donc loolu incha allah si avec l'écriture de l'histoire du Sénégal am nañu yaakaar ne histoire Cheikhna Cheikh Mahfouz ak njabootam dina si dinañ ko bind nu mu gën a rafetee.